muttaqin ay xarit yu xaritoo ci yàlla ay xarit yu xaritoo ci yàlla ñi siyaarante ngir yàlla ñi siyaarante ngir yàlla ñi dimbalante ngir yàlla ñi dimbalante ngir yàlla ba buñ dajeeg yàlla itam ba buñ dajeeg yàlla itam suñu xarit gi di wéy rek suñu xarit gi di wéy rek xaritoo ci yàlla rek mooy wéy xaritoo ci yàlla rek nag mooy wéy ñëpp ñu xaritoo ci dudul yàlla ñëpp ñu xaritoo ci dudul yàlla ku la sopp te xam ne yàlla taxut ku la sopp te xam ne yàlla taxut dana la bañ bu loola dañee dana la bañ bu loola dañee loolu dara ñaawu ci sax dafa war a am gi mooy joolaa. nit bu la soppee. nit bu la soppee. nit bu mu rafet nit bu mu rafet mii bu la doon soppee néewtu lay daal di bañ. lim la doon soppee kon néewtu bi nit dafa la sopp ngir sa taar. nit magatee taar bi dem. soo magatee taar bi dem. dootu la sopp. dootu la sopp de. bu la soppee ngir sa dërëm. soo la. bés bu bés boo amul dërëm. bés boo sagar dana melal dinañu ko. waaye ku la soppala ngir yàlla. ku la soppala ngir yàlla. yàlla moom du daj mukk. yàlla moom du daj mukk. moo tax ñuy soppante ngir yàlla. moo tax ñuy soppante ngir yàlla. seen cofeel dafay wéy rek. seen cofeel dafay wéy rek. ñi soppante ngir leneen. ñi soppante ngir leneen rek. bët bi dañuy jàppante téere baas. bët bi dañuy jàppante téere baas. yàlla ñu yàlla def ñi ñi soppante ngir yàlla. yàlla ñu yàlla def ñi ñi soppante ngir yàlla. yàlla ñu siyaarante ngir yàlla. yàlla ñu siyaarante ngir yàlla. yàlla ñu yàlla dimbale ñun ñëpp. yàlla ñu yàlla dimbale ñun ñëpp.